mbokk yi yéen ñi bàyyi xel la chaîne leader la TMP Events TV seen émission bu mag bi di yóbbulu bis bi dafay am gan gu mag a mag a mag ñu koy wax Serigne malik Gueye waaye soo ko waxee yépp dem si Sadiaratou Touba di clinique tradi moderne bu mag di faj yi feebar yi nga xamante ne ni dafay faral di sonal doomu aadama bokk na ci jabe hémorroïde ndoxum city ba ci faiblesse sexuelle kon nag mbokk yi daw si leen gaaw képp koo xamante ne da nga am jaaxle ci yooyu feebar ah da nga ñëw fii ci kër mbay fa boo laajtee Serigne malik Gueye ñu wan la ko wala nga woo ci numéro 77 539 19 04 Euh, salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di euh, nuyuwaat bu baax bi euh, wax ne ñëwaat nañ suñu ñetteelu émission ñu ci ànd ak Serigne Malick Guèye moom ngeen di jàkkaarloo noonu ci kanamu ecran bi nekk fii ci Kër mbay Fall wala nga woo ko ci numéro yi 77 539 19 04 wala 77 507 38 63. soo ko wooyee di nga ko jot euh, sëriñ Malick Guèye namoon nañ la bu baax xanaa ñu bàyyi la rek nga baalu àq ci tabaski bi ñu jógee ak mbokk yi nga xamante ne ñu ngi lay safoo di la suivre ci TMP 20 TV. aouzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah rahmatullah sëriñ Fallou di wax ne ñi ngi déwénati ñëpp di leen baalu àq di leen baalu àq te ñaan suñu boroom mu boole ñu jéggal te nangul ñu sunu jaamu yàlla ci nu mu gën a sellee ak nu mu gën a rafetee di ñaan suñ boroom dolli sutura ak xéewal ci mbooleem jullit ñi waaye dolli ñu tawféex bu baax a baax a baax ba naal yi nga xam ne naal nañ ko ngir liggéeyal ko lislaam suñ borom defal ñu ci tawféex bu baax salaamaaleykum Serigne Fallou. Serigne Malick Gueye Euh, dégg ngeen euh, kàddu yu am am solo yooyu tey nag ñu war a waxtaanee euh, arthrose arthrose day feebar boo xamante ne nii sonal na askan wi. wax dëgg yàlla nit ñi ñu koy ñaxtu. mais Serigne Malick bi ñu doon laaj. question bi njëkk mooy tey bi ma doon laaj lan mooy arthrose. ban xeetu feebar la lan nga ci lan nga ciy tontu. waaw sëñ <laughs> feebar la bu bari bëri lool sax ci jamono ji. waaye feebar la boo xamante tamit ñu bëri amaguñ ci ak ràññee ndax dafa bokk ci xeetu feebaru rhumatisme yi ci xeetu feebar yi nga xam ne feebaru rhumatisme la su ma am na ñu koy arthropathie dégénérative euh, xeetu feebar la boo xamante ne nag soo gisee mën la ñu bëri amaguñ ci ak ràññee ñaare ku mu daal sax dañuy wax ne dafa am ndoxum siti waaw fekk ne du ndoxum siti te muy feebar bu naqaree faj nag ndax feebar la boo xamante ni ñi muy jàpp dana jàpp góor dana jàpp jigéen waaye ci jamono ji tembe tembe boo xoolee li muy dal ci jigéen du ko dal ci góor jigéen ñi ñoo ko ëppale feebar la boo xam tamit li ko mën a causé dafa bëri loolu naa dinañ ci ñëw waaw waaye pour daal xamal la lan mooy arthrose mooy ci xeetu feebaru rhumatisme yi la bokk am nañu ko arthropathie dégénérative wala polyarthrite dégénérative am na ay tur yu wuute waaye daal nañ ko xàmmee ràññee ko te bañ koo boole ak li ñuy wax ndoxum siti su ko defee Sëñ Fallou bu ñu gënee xóotal dana la wax yan cause waaw cause yi mën naa la cee wax yu xaw a bëri tuuti bi ci njëkk mooy bu fekkee jigéen ñi bu ñuy dem préménopause mooy avant ñuy egg fi ñuy bàyyee njur daf leen di faral di dal ndax li waral loolu mooy. hormonu jigen gi waxtu da fay commencer di soppeku di gëna a doole ndax nekatul ci jamono yu produire liquide yoy nak nga xamne mo nekkon ci bi yaram bi di commencer di amay jafé jafe-jafe di magat dañuy commencer di indi ay problème rhumatisme lu melni comme arthrose bi ci la bok nga xamanteni ni say oom fay metti nga xamanteni ni da ngay sentir ne fep fu articulation yu dajé ni day day metti yax yi mbag yi amna ño xamne dina dem sax ba japp sen crâne ni ndax mom dafa nek lo xamne ne fu ay yax dajje rek day am jeexital fofu su ko defé amna ño xamanteni manam li len ko jox moy manam métier yi ñi liggéey mo len ko jox ma jox la ci misal amna ño xamne ay chauffeur lañ presque bo xolé chauffeur tànk gauche bi tout le temps mu ngi ci embrayage bi bu fekkee oto yi nga xam ne nekkul automatique te Sénégal ak ni oto yi demee da ngay dem ba oto bi day màggat ba day dëgër lool position boobu muy toog tout le temps mën na ko jox loolu. tailleur yi nga xam ne dem bu njëkkoon surtout nga xam ne dañ daan pédale lu bëree bëri daan nañ faral di am problème yi rhumatisme yooyu mécanicien bi nga xam ne toujours position bi muy nekk mooy suufu oto bi lay sëgg du toog du taxaw mën na am problème yooyu ñi nga xamante ni aussi dañoo nekk ay footballeur wala ay xeetu sportif de haut niveau dañoo defan ay accident ci seeni tànk ay jeunes problème mu jeune wala yu mel noonu bu yàggee mën na indi loolu ñi nga xam ne ay carleur lañ di carle di ñuy jonkane noonu tamit da koy indi waaye ba tey am na ci ñoo xamante ni dañuy am li ñuy wax les maladies métaboliques manam moy feebar yi nga xamne dafa andak ni yaram bi metabolisme doom aadama di fonctionner waaw nga xamne masalan tay yaram ni mu war am ci iron zinc calcium magnesium potassium yaa ngi phosphore yaa ngi dégg nangam sangam yep metabolisme doom doomu ni muy fonctionner day dem ba am feebar yo xamne da fay jur mi ñuy malade metabolique moy legi soit yenn ci yoy da fay upp ci yaram bi bu upp wala mu manqué ci yaram bi bu upp léegi am na lu ñuy wax chondrocalcinose bokk na ci liy joxe arthrose mooy yaram bi dafay dem ba am excès de calcium calcium bi day bëri ci yaram bi lool léegi day dem ba jamono joo xam ne léegi calcium boobu dafay wàcc ci biir oom yi laal cartilage yi nga xamante ni mooy nekk yi mooy der bu oyof bi nekk ci diggante ñaari yax yi nga xam ne am benn liquide buy nekkaale foofu léegi nag da koy muucu di ko jeexal su ko defee yax yi dañuy laalante léegi mi ngi mel ne tey boo xoolee oto ni ko oto ni ko tubaab bi bindee rek ñaari weñ fu ñu dajee di nga gis benn caoutchouc bu ci nekk ci diggante bi dina am liquide huile wala yu mel noonu moo koy nooyal bu caoutchouc bu jeexee liquide bi jeex rek da nga gis ne léegi weñ yi bu ñuy laalante rek dañuy yàqu noonu la demee. moo tax yàlla dafa bindee doomu aadama ci bindin bu doy waar boo xamante ni lu ci moom rek mu yëg ko lu manqué ci moom mu yëg ko waaw. jërëjëf euh, waxtaan bi am na am na solo trop mais nit ki ci yooyu nga xeet yooyu nga indi maanaam yaram buy metti wala sa mbagg di metti wala say oom di metti est-ce que loolu rek dalay dal nga xam ne arthrose moo la dal wala dafa am yeneen nu ko nit war a yëgee. waaw maanaam signes yooyu ñu lay wax ndax maladie yëpp dafa am yoo xam ne ay maladie symptomatique am yoo maladie asymptomatique feebar yi nga xamante ni dafa ànd ak symptôme léegi buñ la waxee symptômes yi. léegi doyul pour nga jàpp ne lii moo dal waaye da war a dem ci bërëb yi ñuy saytoo nit lu mel ni hôpital yi ñu mën laa dëggalal ndax lii moo la dal parce que jamono jii suñu faj mi fi mu toll mooy faw mu falaa budd dañuy lëkkaloo ak moderne bi moderne bi mooy nit ki ñëw ci yow jàmbat la benn tawat wax la ay symptômes pour nga gën a mën a confirmer loolu da ko yebal mu dem defe ji ay analyse wala mu defi ji ay rajo su ko defee yooyu bu ko defee ba noppi nag ba confirmer ko yow ci ngay gën a xam ndax lii moo ko dal mais bu fekkee tamit ni ñuy fajee euh, des fois dafay am ñoo xam ne bu ñuy ñëw dañ lay wax ne def nañ analyse yi ba noppi confirmer nañ leen lii moo leen dal kon su boobaa ñun tamit dañuy am droit rek ñëw daal di attaquer faj mi mais si ñi ma la wax ni ñaare foo ko gisee ci nit am na ñoo xam day dem ba jàpp leen seen i tànk duñ mën a dox waaw am na ñoo xam dañuy dem ba daf leen di jàpp duñ mën a dox am na ñoo xam daf leen di jàpp bu ñu tëddee surtout jigéen ñi dañuy jàmbat loolu bu ñu pour ñu yeewu sax jug julli fajar day nekk problème ci ñoom waaw am na ñoo xam ne dañ naan la escalier yi su ma ko yéegee su may wàcc damay am problème yaa ngi dégg te xaaj bi yëpp nag léegi dañuy mujj naan dañuy faju ndoxum si teeg dañuy naan ay ñaqi nangam sàngam waaye du tax ñu wér te feebar la bu naqaree faj nag waaw waaw feebar naqaree faj la macha allah waxtaan bi am na solo trop kon ci loolu la ñuy ñëwee rek euh, tey solution bi lan la ñi xamante da ko dafa amee arthrose tey yow Serigne Malick Gueye lan nga koy digal wala yow nan nga koy faj. waaw ñun comme Serigne Fallou li ñu lay wax rek euh, ñun li ñuy fajee moom mi ngi bëgg a siiw mooy fii ku am arthrose am boo ñëwee sa traitement dix mille francs ngay fay valable pour toutes les maladies suñu dix mille francs yooyu loolu nag Serigne Fallou maa la ci waxtaan sànq di ñun li ñu bëgg dëgg bu nu ko amee dañuy dem ci gratuite ndax yàlla lañuy liggéeyal gis nga am na benn professeur égyptien bu tudd Mouhamad Machali mi ngi gaañu mm, il y a de trois jours à l'âge de soixante ans depuis cinquante ans mi ngi faj ay nit ci gratuite parce que cause bi ko waraloon mooy nee na bi muy jàng dafa seetloon ne baayam dafa amoon benn feebar mais xaalis bi mu doon traité woo daf ko doon dagg di ko ko jox moom muy dem di ci jàngi ba loolu moo sookee ak faatoom bi mu génnee nag école mu ne fas yéenewul demander un sou ci doomu aadama yi lu dul da faj ci gratuite xëy na ñun suñu doolee eggeegul foofu waaye ñaan nañ yàlla ñu egg foofu kon dix mille francs yi ñu def dañ koy def ngir jëmmi yàlla mu néew mu bari mu barkeel kon foofu lañ nekk ñun kon feebar yi ñu li fi waxtaanal yëpp buñ ci mën di lim incha allahu rabbi soo ñëwee boo joxee dix mille francs dinañ la traiteel traiteel la ba yàlla defal la tawfiq incha allah. jërëjëf sëriñ Malick Guèye bi am na trop kon kon ñu tënkaloo rek ci arthrose waaye balaa ñu dem yóbbulu bisu bi day laaj ci arthrose mën na dem ci xeetu lekk wala ci xeetu doxalin ak euh, nit. waaw léegi liñ la mën a baaxee foofu daal mooy tawat ji ku ko amee tey loolu mooy doon yóbbalu bis bi tawatu arthrose ku ko amee. na nga wattandiku yi ñu lay bëgg wax moy na nga wattandiku ngelawul ventilateur bu bari na nga tamit di def yaramu neen ci ngelawli li na nga wattandiku ndox mu sedd na nga dem tamit dox bu yagg ndox bu yagg boobu boo ko defee boo ñëwee rek yaxé dañuy dañuy mel luy bëgg lak yaangi dégg bu fekkee kuy tëdd ci kaw la ci kaw lal nay wacc di tëdd ci suuf allongé wu ci suuf si mat la loolu daal boo ko defee te wa wattandiku nag matière gras yi ak yom acide yi waaw lekk yi nga xam ne ñoo bëri graisse ak métier lekk yu bëri acide danga nga koy moytandiku bu baax a baax tuuti yàlla mën na la defal tawféex incha allah. waxtaan bi am na solo trop ci euh, tey Serigne Malick Gueye moom ngeen àndaloon euh, ci TMP20 TV ñu waxtaanee arthrose yóbbu la bis bi daal xam naa ne fa laay teg sama sama sama sama loxo mm-hmm. ndax lu am am solo la te gëm naa ni buñ ko fonkee comme moom ni mu ko waxee nii mm-hmm. yaakaar naa ni dinañ mën a moytu lool lool lool amee mm-hmm. jàngoro boobu di arthrose di fàttali Serigne Malick Gueye fii ci kër Mbaye Fall la nekk ku ko soxla mën nga ko woo ci 77 539 19 04 wala 77 507 38 63 jërëjëf mbokk yi yéen ñi bàyyi xel la chaîne leader la TMP Events TV sen émission bu mag bi di yobul bis bi fa am gan gu maga a mag ñukoy wax Serigne malik Gueye waye soko waxe yépp dem ci Sadiaratou Touba di clinique tradi moderne bu mag di faji fièvre yi nga xamanteni ni da fay faral di sonal doomu aadama bokku ne ci diabète hémorroïde ndoxum siti ba ci faiblesse sexuelle kon nag mbokk yi daw si leen gaaw képp ko xamanteni ni da nga am jaxlé ci yooyu fièvre ah da nga ñew fi ci kër Mbaye Fall wala ci Serigne malik Gueye ñu wan lako wala nga wo ci numéro 77 539 19 04